voilà euh, Chérif euh, ñu commencé euh, xët bu njëkk yéenekaay yi commencé ko ak l'observateur ak rapport bi nga xamee ni intéressé na la lool. waaw rapport bi yónnekaay bi daal dina ci ñëwaat ak président Macky Sall gis nga ko nii loxo yim tee toog. Macky Sall les audits contre coup ak politique loolu journal bi daal di ñëwaat ak li nga xamante daal jàpp na ni criminalité à col blanc la ko tuddee ak sentiment d'impunité bi nga xamante ni yenn saa yi conséquences yi mën a joon sur les schémas politiques rawatina Macky Sall bi nga xamante ni fi mu bëgg dem ak ban jeexital lay jox boobee rapport rawatina kon instruction yi jox euh, premier ministre Amadou Ba ngir kon mbir mi ñu daal di koy càmbar bu baax a baax. justice def ci liggéeyam Arona Sarr mooy directeur de la promotion de la bonne gouvernance nee na texte réglementaire yi daal dañ ko war rek mettre ak garde-fou yoo xamante ni contre les su ko defee kon njombe yi ñu nemmeeku fii ci Sénégal ñu mën koo gis bu ñëwee ci rapport ba léegi ak bu ITIE initiative pour la transparence dans les industries extractives ñoom démb kon joxe nañ rek li nga xamante ni mooy euh, ressources minières yi rawatina kon rek le secteur extractif li mu dugal xaalis ci Sénégal généré na daanaka lu toll ci deux cent 23 euh, virgule 15 milliards de francs CFA kon le secteur extractif daal di dugal boo xoolee nag décroché wàllu prolongation ci ay contrat jëm kon ci cent treize virgule huit milliards de francs CFA démb kon la Eva Marie Coll Seck doon joxe boobee rapport ñu waxaat ba léegi rek ci wàllu xaalis ak mbiram fonds ak fédération sénégalaise bu football mi ngi nii bilan coupe du monde Augustin kon dévoilé na fonds du GIE un milliard de francs CFA dont six cent millions de francs CFA six cent millions lan dépensé ci wàllu billetterie yoo xamante ni kon mooy coupe du woon boobee compétition ñëwaat également rek. ci enquete bi nga xamante ni wàllu sexualité en milieu scolaire maanaam xale yi li ñu teelee rek euh, sëy ci seen biir na ci daara yi muy phénomène boo xamante ni phénomène au début la ko tuddee gis nga ko ay chiffres yu ñu joxe nan gis nañ quatre-vingt-cinq maanaam juróom-ñett fukk ak juróom ci ay ëmb yoo xamante ni teel nañu enregistré ci année bi passé rawatina ci région bu Thiès daanaka mbuur nañ moo jël raw gàddu gi ndax 26 cas yi moom ñun ngi ko nemmeeku rek ci collège public yi ca Mbour muy loo xamante ni kon gis nga ko Ousmane Ndiaye di psychologue ñëw na daal di koy jàngat ñëw également ci wàllu vol ak viol ak mbiram drogue ak meurtre gi leen nemmeeku doon gaar bu mag ma nga ca Touba histoire jamais raconté muy benn reportage bu fa journal bi jox cinébar ba léegi rek ak détail audition dealer yi nga xamante ni kon extase yi mooy xeetu tàngal yi ne kon gone yi bu buñ ko jëfandikoo dañuy tàggoog seen sago rawatina ci daara yi ñëwaat na ci ak tentative de corruption boo xamante ni dealer yi bëggoon noonu koo def waa police. xeetu drogue bu doy waar ñu dem ci enquête. enquête ba léegi gestion des deniers publics maanaam alal ji ñëpp bokk am ñoo xamante ni kon dafa am lu ñu def ak moom mbiram reddition des comptes maanaam leeral fi ñu dugal yooyu xaalis entre pouvoir ak responsabilité le journal bi daal di ñëwaat après rapport cour des comptes bi nag jot na maanaam gars yi wax kon naka lañ yoree alali Sénégal ak ministre yi ak DG yi rawatina DAGE yi kon responsabilité ku nekk fan la féete cas cas d'espèce yi maanaam ci mbiram Cour des comptes bi journal bi kon jox na ci kaddu gi ay borom xam-xam président Macky Sall moom chargé na premier ministre am Amadou Ba mu rekk kon jël ci ay mesures adéquates am na jurisprudence Khalifa Sall ndax mbiram caisse d'avance gi ba beneen euh, corps de contrôle muy IG daal di ne woon comme ni mu ko yoree euh, yóbbu woon nañ ko ci kaso ndax kon Macky Sall aussi dina dem jusqu'au bu rawatina ci wàllu gestion des deniers publics loolu nag tax na kon société civile bi moom nee nañ duñ bàyyi mbir mi mu sedd am na benn rassemblement bu nar am fanweeri fan ci weeru euh, décembre ñëwaat ba léegi rek ci secteur extractif ak rapport ITIE bi ñëw ci kon lim généré ci xaalis deux cent vingt trois virgule quinze milliards de francs CFA et puis tamit gis nga ko ñi ko doon wax dem biram avion Sénégal Air ba audience boo renvoyé nañ ko ba janvier incha allah démb kon nañ ko waroon amal mais juge bi da koo dàq ñëwaat rek ci li nga xamante ni kon mooy lancement Sonaget bi fu war a remplacer. ñi nga xamante ni kon ñoom ñooy waa UCG et puis Maroc détrôné Sénégal ci classement euh, meilleure équipe ci wàllu Afrique. dañuy dem ci le quotidien. ñëw ba léegi nag ci l'heure des comptes jot na kon gars yi def li nga xamante ni mooy compte ginnaaw bi cour des comptes daal di nemmeekoo ne gars yi am nañu sàcc xaalisu Sénégal société civile moom di doon mars fanweeri fan ci weeru décembre personnel CTI muy centre de traitement des épidémies ca Thiès démb ñi ngi doon def benn sitting ñoom di réclamer seen i prime ndax ci wàllu prime yooyu sax am na ñoo xamante ni buñ sukkandikoo ci cour des da ngay gis kenn nit am lu ëpp juróomi ko ci ministère de la moo tax gars moom nee na Macky Sall mooy mu bëgg ko wala mu bañ ko tey jii xëy na dina leeral ak séminaire u Benno Bokk Yaakaar business bi nemmeeku nag ci déplacement xale yi nga xamante ay tout tànk lan ñu jëlee leen Guinée Bissau indi leen fii ci Sénégal ngir ñuy yelwaan mhm. journal bi taxaw na ci le soleil électrification dëkk yi programme bi nga xamante ne war nañ ko faa indi rek ngir ñu mën a am courant ñoom mille villages kon lancé nañ ko bu sukkandikoo ci journal bi ñëwaat également ci secteur extractif ak lim généré ci ay koppar lu ëpp kon cent milliards de francs CFA jox nañ ko état bu Sénégal ci atum 2021. Libération Libération ñëw ba léegi ci rapport Cour des comptes organisation société civile yi kon dinañ investir mbedd mi Y'en a marre ak ñim àndal ren nee nañ kon. fanweeri fan ci weeru décembre dina am benn rassemblement journal bi ñëwaat ba léegi rek ci mbiram Bocar Samba Dièye bi nga xamante ne importateur ceeb bu mag la ak banque bii di Attijari euh, gis nga ko rek dafa mel ni ba léegi euh, justice ñi ngi wéy di jox dëgg kii nekkoon importateur bi après avoir condamné kon la banque a payé onze milliards de francs CFA tribunal bi li mu déclaré mooy mbir mi niil jëm kon saisie yeeg attribution yeeg créance ni ñoom ngi ko doon pratiqué ci moomeelu kii di Bocar Samba Dièye et affaire suyu boot ak contradiction yi nga xamante ni Sidi Mouhamed Mbaye mi ñu tuddee woon le transporteur nouvelle révélation dossier yi mel ni kon élément yi daal dafa placé Mamour Diallo ak le transporteur au cœur de la tempête bu ne transporteur nag mooy ki nga xamante ni moo jëli woon Adji Sarr ca suite beauté di Sidi Mouhamed mbay voilà ñu dem ci tribune gestion fonds Covid 19 yi ak impunité sélective bi nga xamante moom la nemee ko au sommet de l' ñi nga xamante daal dafa mel ni kenn du leen laal te ñi def alalu Sénégal dara jaadu ci ay ministres yoo xamante daal rapport bi dañoo perdre ci biir rapport bi ak ñi nga xam ne leen a sauvé par le coup de Macky ndax dafa mel ni moom Macky Sall kon dafa teg. concam ci mbir yi bokk na ci kon ñin limogé woon muy Matar Ba ancien ministre des sports Dame Diop mi fi nekkoon enseignement professionnel ak Zahra Iyane Thiam moom it ak ba ci ñoom ab Ablaye Diouf Sarr ñin protégé kon Mansour Faye bokk na ci ab Ablaye Daouda jàlloo ak nga xamante ne mooy Moustapha Diop ndax ñoom ñi bokk nañ ci gouvernement bi ñeneen ñi moom dañ leen dàqoon xëy na dàq rek mi leen tuddee woon ci rapport Covid 19 bi. voilà Chérif dañuy dem ci Walf Quotidien ñëw ci troisième candidature bu président Macky Sall bennoo kon dafa mel ni réeroo am na ci biir boobee coalition APR moom forcing lañ bëgg a def ngir imposer kii di Macky Sall Moustapha Niass ak moo euh, maître Ousmane Seye moom ñi ngi rappeler les règles alliés yi ba léegi rek de la première heure ñi ngi lànk ne ñoom fait accompli mënu ci am faw rek kon waxtaan daal ci am et puis tamit wàllu corruption ki fi nekkoon rek cardinal fii ci euh, Sénégal di monseigneur Théodore Adrien Sarr moom it ko def na homélie mag maanaam xutba ngir rek kon xam wax la nit ñi musiba bi nga xamante ni guerre mën na koo jot et puis Awa Marie Coll Seck ñëw na rek ci secteur ressources naturelles yi ak nee na daal yenn s'appartiennent au peuple mai am mel ni kon démb bi mu doon def euh, rapport bi ci la ko wax. Mhm, ñu dem ci les échos. les échos daal ñëwaat ci rapport cour des comptes Max Macky kon exclure ay poursuites judiciaires sàkku na ci premier ministre am Amadou Ba mu daal di leeral opinion bi ci li nga xamante ni mooy rapport bi dàqul kon ñu daal di rek euh, topp gars yi ci wàllu yoon société civile moom ala kulli al nee nan dina rek réclamer ay tête maanaam am ñoo xamante ni il faut ñu démissionner ba pare liñ sàcc ñu daal di koy daal delluwaat démb sax am benn concept bu ñu tuddee euh, sunu alal du rees muy alal ji nga xam ne gars yi jëloon ko et puis ñu ngi ko doon wax mbiram abus de confiance ak euh, mi nga dafa escroqué woon homme d'affaires bii di Abdoulaye Sylla lu toll kon ci juróomi li nga xamante ni mooy médiation pénale bi ngir bañ a dem dungu sin moom Zakaria Sow bi le jour. ñëw rek ci li nga xamante ni tamit mooy fond le fond du problème bu ne fond nag mooy xaalis bu ante tamit jafe-jafe bi nga xamante moo tax gars yi profité ci texte yi ngir sàcc xaalis ba bokk na ci kon lii muy décret 884 bi nga xamante ni Macky Sall moo ko signé woon décret bi nag portant création et fixation règles d'organisation et fonctionnement jëm ci fonds riposte Covid 19 ngir rek daal di alléger lu bëri ci ay procédure jëm ci ay marché ñu ci bëri nag rawatina article 10 ba nee na comme amul contrôle a priori maanaam laataa kon ñuy joxe xaalis bi looloo tax kon ñoom ñu porox ndox lu si Cheikh Tidiane ba daal di kon luubal alal ji et puis en question jëm ci ressources yi nga xamante tamit euh, euh, secteur minier bi daal dina koy rek dugal. Euh, lu jëm kon ci responsabilité sociétale d' entreprise daal euh, ba léegi ñi ngi koy sampab laaj ndax ñoom euh, entreprise minière yi li ñu jox alal askan yi duñ ci gis seen bopp bariwul waaw dem ci laas soxna saa ngi nii sax moom mi nga xamante ni kon moom moo jiite ITIE moom di Eva Malikol Seck kon plus de deux cent vingt trois virgule quinze milliards de francs CFA yoo xamante ni mbir mi daal dina koy généré mu war a dugg ci gafag ak état bu Sénégal Massiam moom mi nga xamante ni moo jiite UCG nee na amul benn détournement daal boo xamante ni wala malversation def na ko ñoom ci mbiram fiscalité li leen cour bi doon reproché ne beneen yoon ñu bañ koo amati bu ñu joxee li nga xamante ni kon moom mooy marché ca jamono jooju société civile moom dinañ marche incha allah le 30 la buñ sukkandikoo ci journal bi et puis élection présidentielle am na benn mouvement bu judd ca France mouvement contre le troisième mandat la ngir Macky Sall bañ a wokk. source A. waaw source moom gën nañoo indi leeral sax ci mbiram. Cour des comptes ak rapport bi nga xamante ni kon génn nañ ko ci sukkandikoo kon du président de la du beneen kilifa kon moo demande cour des comptes ñu publier ces rapports désormais mun sa rawatina kon rapport particulier yi nee na kon ce sont plutôt les magistrats ñoom ci boppam ña fa nekk ñoo jël seen décision ginnaaw concertation waxtaan seen biir ngir rek di rendre public seen rapport particulier yi comme ni leen ko yoon daal di mayee publication nag des rapports était donc Euh, une exigence euh, du code de transparence bi nga xamante ni kon Sénégal bokk na ci ñi nekk ci UEMOA yëpp ngir mbir yi ci ñi yoree xaalis donc euh, bi nga ginnaaw loolu nag kon cour bi estimé na ne désormais loi bi moom il faut ñu koy appliquer ndax yoon may nañu ko et puis lii wax nañu ko sànq rek mbiram Zakaria mi nga xamante ni kon ci wàllu escroquerie lañ ko doon tudd moom ak ki jiite woon Ecotra. le témoin dafa mel ni kon patate chaude bi daal Macky Sall jox na ko kii di Amadou Ba jëm rek ci euh, suite bi ñu war a jox mbir yi recommandation euh, rapport cour des comptes le président daal la kon évoqué na ko démb ca conseil de ministre ba tax na rek boobee audit daal ñu daal di rek xool naka lañ koy mën a càmbalee ba tax mu sàkku kon ci premier ministre bi société civile moom nee nañ dinañ manifester euh, le 30 décembre bi. Mhm, dañuy dem ci Sud Quotidien ñu ngi noonu ba léegi waaw la société civile ba léegi ak seen manifestation beeg ñaawlu bi yore nu force Covid 19 bi et puis état bi nga xamante ne empoché na 223 milliards jëm kon ci le secteur extractif. tàggat yaram tàggat yaram waaw waaw mel ni record a ngi nii kon euh, bi nationaux yi daal au pouvoir la ko tuddee jëm ci équipe nationale bu Sénégal ñi na xàmmee na leen nga xamante ni daanaka dañoo am tànk fii am tànk fee di ay sénégalais ne juddoo bitim réew mais bëgg porté couleur nationale comme ni ñu ko gisee rek ñoom euh, Elimane Ndiaye ngi nii kon ñoom Abdou Diallo Jacob ba ci sax Seyni Dieng ñoom nag ñoo nekk ci xëtu yéenekaay bi ci jamono jooju tamit gis nga ko rek fédération sénégalaise de football ak seen comité exécutif bi daal ginnaaw bi ñu jugee ci Qatar réunion bi démb mooy COMEX bi liñ ci wax daal gis nga ko Mopati Gueye moom nee na dina centraliser rek euh, tontine yeeg staff médical bi dans le collimateur de la fédération sénégalaise de football jëm ba léegi rek ci li nga xamante ne mooy maître Augustin Senghor ah. waaw arrêté ministère bi fixé woon prime yi journal bi daan na ci ñëwaat et puis Amadou Kane moom encore rek dans ses grands cheveux jëm rek ci jafe-jafe bi nga xamante ni gis nga ko moog record ci li nga xamante ni mooy prime yi et puis Ligue bi de léegi rek Guédiawaye est-ce dina a maintenir cadence bi ñoom ñi nga xamante ni ñi nga am ay résultats yu baax Maroc daal dina détrôner Sénégal ci classement FIFA ah, daan ñëwaat rek ci mondial raté détrôné au classement FIFA le Sénégal face à de nouveaux ngi naaw loolu nag gis nga ko am na difficulté ngir reconquérir sa place bi am na mais nag surtout ñoom dañoo am jafe-jafe ngir Big 5 bi Sénégal li ñu nemee ko mooy euh, maanaam daal du gagné équipe yu mag. équipe yu gën a waaw waaw. Big 5. waaw man dama ko boole anglais ak français dama ko waaw équipe yi gën a rëy ci Afrique daal dafa mel ni football ak ñoom waaw moom la nemmee ko ba tax na gis nga ko journal bi daal ñëw staff bi nag doon waa être renforcé au plus vite loolu tamit ay gis-gis la yoo xam ne yi wax nañ ko bokk na si ñu daal di trouver ay match amicaux ngir mën a progresser loolu nag pour moo am il faut ñu dajeek ay ngand yoo xamante dina leen mën a daan ngir mm-hmm. mën a jëlaat place bi nga xamante ne daanaka plus de 40 waaw loolu nag moom bon football la ah moom it parce que ba mu ba mu nekkee en forme dafa jëloon place ba comme nekkutul en forme moo tax entraîneur bi tamit moom ku koy jox résultat la gis xëy na na muñ rek wala mu góorgóorluwaat mën na ñëwaat. kon ñu jaaxale ko ak sunu bi nga xamante ne mi ngi mettre la pression sur Modou Lo on le certificat de guérison jëm kon ci combat bi naroon dox digganteem ak Ama Baldé dañ ko kon. annulé woon ko dañ ko reporté rek pousse ko Ama Baldé sax diggante bi moom it amaat na fi combat moo Gris Bordeaux euh, jusqu'au 15 août encore pour épuiser le calendrier ndax combat bi ki nga xamante ni kon moom mooy Luc Nicolaï moo ko waroon tëgg mais juróon na jow ndax mbër mii di Modou Lo di roi des arènes dafa amoon ay gaañu gaañu. Ah, voilà Chérif je pense que euh, yéen kaay ñi ko fi wax bari na mën nga yem sax ci Sud Quotidien El euh, Hadji gis nañu mobilisation bi nga xamee ni ni ko Alioune.